bismillaahi rahmaani rahiim tey mooy sunu bindu fukk ak juróom ñett ci muslimu saxiir tey sunu waxtaan mooy lan li gone gi jàngale mu ne adabi fi madrasati adabi fi madrasati adab jàngal ngeen ko mooy lan nee na day taxaw ci julli gi bi adabin adab mooy teggin madrasa mooy lan mooy daara école université lépp ci lay dugg mooy jàngukaay mu ne nag adabi fi madrasati yi hmm? teggin yi ma war a am ci suñu daara ji teggin yi ma war a sàmm sàmmanteeg suñu daara ji daara ji mat naa sàmmonteel ay teggin ndax kat fa la nit ñi ñëw di dóoyee xam-xam mboolem ku baax koo gis ku baax koo gis mu xam-xam ku mën a doon dafay dem ca daara ja ñëw yar ko defar ko jàngal ko ba société bi ba nit ñi mën koo jariñoo moo xam waxtaankat ba nga gis ca télé ba muy waxtaan ba gis muy firi téere ñooy bind téere ñoom ñëpp yonante bi sallallahu alayhi wasallam amoon na daara saxaaba yi ñoom ñëpp mu jàngal leen kon barab boobu yi nga xam ne dañ fay roote xam-xam barab boobu kenn waru koo caaxaane moo xam école bala mu xam ci daara ji la moo tax adab yi fii madrasati yi samay teggin wala boog teggin yi ma war a am ca daara ja teggin yi ma war a am ci sama daara wala sama école mu ne uhibbu madrasati uhibbu moom jàng ko ay yoon uhibbu madrasati man de dinaa bëgg suñu daara wala boog dinaa bëgg sama daara moom boppam lay waxal dinaa bëgg sama daara li annaha tuallimu nii ndax moom daara ji kat moo may jàngal wa tuhazibu nii moo may yar nee naa ne baat yi ngeen koy wax wax bu wér li annaha tuallimu nii ndax daara jee may jàngal wa tuhazibu nii te moo may yar moo may jox xam-xam muy benn di ma bu yar kon ndeke daara nekkul dañ fay jàng dong de déedéet ku la jàngal képp te yëru la loolu la kooku nax na la loolu baaxul dangay ngay jàng boole kooku bu yar njàng xam-xam bu ënte ko bu yar coono rek la amul njariñ yar moom mooy mooy jiitu lépp boo jàngee borom da ngay fexe boo jógee ca daara ja yaru waaye jàng jógee ca daara ja dem ca koñ ba mel na ñëmës ta dem daara yara di ko waaw ah, ñu naan kii di wax dëgg daa mel ne musta dem daara yow dañuy demu daara la tane loolu xaslu waa daara ja soo dañu naan waa daara ja ñoo ko yoru fekk yar nañ la dangaa dëgër bopp kon boo jàng jaaree daara da ku la gis dangaa dangaa dangaa war a soppi ko dañoo war gis na kii kat moo gën a bëgg julli kii moo gën a fonk ay ñaari waajam kii moo da moo gën a nangu yónneen kii moo gën a nangu nàngam waaye jóge ca daara ja nag dem yam ak ne mësta dem daara loolu tooñ nga sa ñaari waajur moo ndax daara ja moo may jàngale jàngal wa bu nii di ma yar fekk rek daara ji ci boppam moom ña nekk ci biir daara ja ñoo lay jàngal di la yar ñu nekk ca daara ja kon loolu day dellu ca sëriñ daara yaat euh, ustaas yee jàngaleeg yooyu ñoo lay defar mu ne azhabu ila madrasati mubakkiran dina damay teel a dem ca daara ja azhabu damay dem ila madrasati jëm ca sama école ba para daara ja mubakkiran ci lu teel maan du ma tardé kon adhabu ila madrasati mubakkiran damay teel a dem ca daara ja wala ataaxaru du ma tardé xan daqil jarasi ci sone gi waaw ci sone montar bi lii boo demee ci école yi ñoom ñoo ko am affaire bu ñuy kii noonu nga xam ne bu jàng jotee dañ koy xëj mu naan ko di di sone soo dee élèves yëpp xam ne ndekete heure bi jot na waaw ah, bu dee fii ci daara ji mooy ni ñuy def bu jàng jotee sëñ saa ne acca jàng jot na nangam nangam man man nag du ma tardé heure bu ñu wootee ne jàng jot na rek du ma tardé tardé am jàng baaxul nit du ñu toog ba war a jàng ñu naan diwoo fankeeg diw nekk feeg di tardé déedéet koy fonk buy waaj jot sax boo waree sëlmu nga dem sëlmu ji loo bëgg a def nga dem defe ko waaye bul tardé waaye ah, bul nekk ba jàng jot naan toog war a jàng moo war a def naan damay tóori ndox damay sëlmu jëkk déedéet damay jëli sama téere déedéet loolu da nga bu ñu ne heure bi jot na rek nga ñëw toog moo tax ma ne azhabu ila madrasati mubakkiran damay teel a dem daara ja wala ata axaru du ma tardé xan daqil jarasi wala ci sonek montar bi jaras bi bu ñu waxee ne jàng jot na daal man du ma tardé bu ñu xoolee daal moo tax boo demee ci école ya bu ñu sonee ba ñëpp dugg li ñu njëkk a def mooy xool ba xam xool ana diw ana diw xool ba ñépp mat waaw léeg sax nit ñëw tardé ñu ne ko bu ko defatee bu ko defaatee dañaa ko demal ñibbi demal woo sa waajur ñu ñëw bu ñëw ñu ne ko kii kat li muy tardé daa bari bu tardé danañ ko dàq ndax ku jàng dañ ko war a fonk xam-xam la mhm. usallimu ala rifaaqi damay nuyu samay moroom ak talaamiisi ñi nekk ay élèves samay moroomi élèves yi mooy sama moroomi donk yi dama leen nuyu nuyoo daa baax boo ñëwee asalaama bu dee dañoo bari nga ne asalaamaaleykum bu dee bariwuñ nag boo ne asalaama ba ne ku boo ko mënee jox loxo saafante moom ba tey loolu rafet na loolu day tax dong yi bëggante élèves dañuy bëggante ne usallimu ala yi damay nuyu euh, samay moroom ak talaamisi ñi di ay élèves xaa ilan ma ne leen asalaamualeykum wa rahmatullah noonu la leen nuyoo loolu mooy nuyoo jullit nuyoo boobu lanu lanu yàlla lanu yàlla jox euh, kon loolu mooy benn xaaj bi boo liggéey ñu jël beneen xaaj ba insha allah kon mu ne adabi fi madrasati samay teggin ci sama daara wala teggin yi ma war a am ci sama daara ji uhibbu madrasati damay bëgg sama daara li annaha tuallimu nii ndax moo may jàngal wa tuhazzibu nii te moo may yar azhabu ila madrasati mubakkiran damay teel a dem ca daara ja wala ata axaru du ma tardé xan daqtil jarasi walis heure jàng bi rek man ko ko firee noonu mooy sone walis sonek sonnerie gi walis heure jàng bi usallimu ala rifaax damay nuyu sama moroom yi attalaamisi ñi di ay dongo xaa ilan mën na leen assalaamu aleykum mooy lan yàlla na nekk ci yéen bismillahi irrahmani irrahim ñu dellusiwaat ci suñu bindu al muslimu ñu ngi nekkoon ci sunu fukkeelu bind ak juróom-ñett kon tey mooy nekk ci suñu fukkeelu bind ak juróom-ñeent waaye leson bi weesu woon muy bind bi weesu dañ koo xaajoon te moo nekkoon adabi fii madrasati tegg ni ma war a yi ma war a ci daara ji wala école bi madrasa day firi école ba tey mooy daara bu dee daara nag kuttaab la ëpp lu ñu koy woowee waaye madrasa daal mooy jàngukaay nii muy jàngale nii rek moom xeetu élève lay jàngal maanaam daal élève buy dem ci daara ja di bu dem ci école bi di jàngi moom la gën a nuru waaye jubluwu ci dongo yi ni ñuy dunde ci seen biir daara kon jàngoon nañu ba agsi fan waxoon na ne man de damay bëgg sama daara wala sama école ndax ñaari mbir bu njëkk bi mooy ndax daara ji kat moo ma jox xam-xam moo ma yar kon bu ñu la laajoon lu tax nga bëgg sa daara mën ngaa tontu ñaar yooyu nee naat su may dem ca daara ji damay teel a dem moo tax du ma tardé heure jàng heure bi ñaan jóg leen jàngi daal du ma ko tardé nee na woon day nuyu mbokki donga daaraam yi kon nag du xoloog ñoom ak am ak ñoom ay histoire waaye day séq ak ñoom jàmm fu mu leen gis da leen di nuyu ni leen asalaamualeykum wa rahmatullah foofu la ñu yemoon tey mu yokk ci lan mu ne uhibbu muallimi uhibbu moom jàng nañu ko ay yoon mooy dinaa bëgg mooy damay bëgg uhibbu muallimi dinaa bëgg sama sëriñu daara bu dee ca daara ja bu dee école ba nga dinaa bëgg sama maître maître mooy ki lay jàngal ki ne ci classe bi di jàngale mu muallimi mooy dinaa bëgg sama sëriñu daara ki may jàngal daal dinaa ko bëgg lool wa asmahu kalaamahu damay déglu ay waxam wa utiicuhu te dama koy topp tamit damay topp ay ndigalam ndax ki lay jàngal xam-xam kooku amoo ak fayam même boo ko doon fay sax même bu dee école ba sax da ngay fay loola taxul nga am ak fayam mënu koo fay say waajur mënuñu koo mënuñu koo fay ndax lim la jox loola amut ak amul njëg ndax dalay yee ci àdduna jàngala ba nga xam ni ngay jaamoo yàlla jaamu yàlla kay wér nga ne ëllëg mën ngaa dugg àjjana sax fekk yaa nga dugg àjjana ci sababu lam la jàngaloon moom nga jëfee rek ba dugg àjjana kon kooku amoo fayam bu dee ki lay jàngal adduna sax dalay yee ci adduna bi da nga xam yeew xam na di ngay dundee ci adduna bi kooku ba léegi amoo ak fayam nee na buy wax damay déglu wax ji kon kenn du la jàngal di wax ngay nekk ci leneen wala ngay fo wala ngay dugg ci leneen déedéet da ngay déglu lim lay wax tey di ko jëfee bu la santee dara da koy dégg man wëlbati ko jëfe ko boo ko déggee te jëfe woo ko amul njariñ da koy dégg boo noppee dem jëfe ko man wa asmau kalaamahu damay déglu ay waxam wa utiuhu te dama koy topp dama koy topp mu ne uhibbu ixwaani talaamisa dinaa bëgg bëggit sama mbokki donga yi wala sama mbokki élèves yi mhm. sama mbokki donga yi ñoom it dinaa leen bëgg ñu ma bokkal nekk ci daa ji du ma leen noonoo dama leen bëgg wala alabu maahum du ma foog ñoom laay ban saqilan fa mu diis wala fa mu wóor wóorul yadurruhum moo xam ne da leen di lor nee na dinaa fo ak ñoom de waaye fo mi foo kaf ak ree lay lay doon dama ci boole ay saaga wala dóor wu metti wala daane ko jël boo xam day metti mën na caa jële jële ay gaañu gaañu wala yu mel noona comme feyo ay wéq ay dóor ay wax ju ñaaw loolu bokku ci am fo moo tax mu ne wala alaabu maahum du ma foo ak ñoom laiban saxilan foo mu diis mooy foo mu wóor yaduruhum moo xam ne dalee leen di da leen di lor booy fo xaa xamal foog yi ni muy fi muy tàmbali ak fi muy yem mun na laa atakallamu fi safi du ma wax ci classe bi kalaas bi mooy fi ngay toog di jàng su ma xasee ba toog di jàng du ma nekk di wax ndax newoon na lan wa asmoo kalaamoo nee na suy suy wax damay koy déglu mun munoo boole nag ñu lay jàngal nga bëgg a xam lañ lay wax bëgg a wax kon su ma nekkee ci classe ba ma nekk di waxtaan ak déedéet damay déglu rek concentré wu ci njàng mi wa antabihu ila muallimi dinaa déglu sama sëriñu daara fi darsi ci leçon bi nee na buy jàngale leçon bi tamit dinaa ko antabihu lu muy lu mu wuteeg wa asmahu asmahu mooy déglu nii ci nopp antabihu mooy déglu ci xel mooy muy wax dama koy jéem a dama koy jox sama xel di jéem a xam li muy wax antabihu mooy yeew mooy comprendre mooy li muy wax dama koy jéem a dégg ba xam li mu bëgg a li mu bëgg dugal sama bopp bi loolu lan la di ko jéem a xam ndax loolu da koy noppal ndax bu fekkee bu waxee ba sonn nga ñëw wax leneen loolu da koy sonal waaye da ngay jéem a dégg li mu la dajale sa xel mépp ci la ngay jàng di ko jéem a dégg mooy wa antabihu ila muallimi waaye dinaa déglu déglu xel sama sëriñu daara bi fi dar ci leçon bi leçon bi mu lay jàngal dama koy dig di ko jéem a comprendre mu tëje ko lan mu ne ahfazu duruusi danaa mokkal samay bind mooy samay leçon bind yi ma weesu dama koy mokkal nga ne ku ne ma woon taril ma maasa eh, maa yajibu alayya qabla salaati ma daa koy tari bam jeex man dama koo mokkal kon darsa dañ koy mokkal boo ko mënee mokkal ci yeex bi baax na waaye boo ko mënee mokkal ci maxanaam ba tey baax na maxanaam mooy lan mooy bu ñu la ko laajoon nga mën koo wax donte mënoo ko tari nii mu dem waaye bu ñu la laajee jëmmi bind ba rek ko mën a wax da nga ko mën a wax mais bu ñu la laajoon yow yan teggin ngay sàmmonte euh, ci daara ji yan teggin ngay jëfe ci école ba lii ñu la jàngaloon nga mën ko wax nga mën a wax lépp teggi yi damay teel a dem duma ma sama sama mbokk doo yi élèves yi dinaa leen dama leen nuyu ku bëgg ki may jàngal la buy wax dama koy déglu di jëfe ay ndigalam sama mbokk doo ngay dama dama leen sopp lool dinaa fo ak ñoom ndax foo mënta ñàkk waaye foo nag du nekk foo mu diis mu leen di gaañ su ma nekkee ci biir fi may jànge du ma wax bu ki may jàngal di expliquer tamit naa ko déglu bu baax a baax ba xam li muy wax kon lii boo ko xamee mooy wane ne yow mokkal nga leçon bi kon mokkal nit ko da ngay mokkal baat yi dong axfazu duruus yi damay mokkal samay bind wa akatubu wadaif yi damay bind samay devoir devoir élèves yi ñoo koy bind dañu ko jox ca école ba bu ñu demee kër ga bind ko bu ñëwee wanaat ko monsieur bi bu dee ci daara ji nag mooy ni donga daara yi def bu ñu wàccee bind bañ jàngoon ñu bind ko bu ñëwee wanaat ko sëriñ daara bi mu leen fii baax na defal ni defal ni nangam loolu mooy wadaif waaw bu leen xel wa aktubu wadaif dinaa bind samay wartéef ko wax wala uwassixu kutubi du ma tilimal samay téere téere yi may jànge duma ko tilimal wa dafaatiri ak samay kaye donc bu dee dañu ci ay kaye yu ñu binde téere bi may jànge ak kaye yooyu duma leen tilimal wala muy xotteek wala muy sàggan comme yéen ni ngeen koy defee na téere bu ngeen yor une semaine bu ñëwaatee da gis day tilim lool yenn kayit yi euh, froissé yenn yi xotteeku nga ne téere bi ngay jàng mënoon nga cay jàng ba bàyyi jàng sa rakk di ñëw di jàngat sa rakk mën naa ñëw ba màgg ba war a jàng xam nga génn téere bi nga doon jànge loolu ñun nañ ko téere bi nga jàng tasu si xaar danga koy denc ba sa rakk war a jàng xam nga mën koo génne joxaar ko ko mu set wicc lu bari lu bari nañ ci mën a jàngal même ñi jàng tubaab dañ koy def am na am seen lañ jàngoon primaire ba ñuy ba kii seen gone bu ca tolle mën nañu koo génn waat joxaar ko ko loolu daa bokk ci fonk xam mooy sàmm say téere mooy sàmm say wala uwasiqu kutubi du ma taqal du ma tilimal samay téere wa dafaatir ak samay kaye kon mi ngi noonu buñ la laajoon kon loolu ngay tontu mu ne uhibbu muallimi ma jaaraat ci dinaa bëgg ki may jàngal sama sëriñu daara sama maître wa asmahu kalaamahu damay déglu ay waxam wa utiicuhu te dama koy topp uhibbu ixwaani talaamiza dinaa bëgg samay mbokki donga wala alabu maahum du ma ñoom laiban saqilan fo mu diis yaduruhum moo xam ne da leen di gaañ laa atakallamu fi safi du ma wax ci biir jàngukaay bi ci biir école bi ci biir classe bi wa antabihu ila muallimi dinaa déglu ki may jàngal déglu xel fi darsi ci leçon bi mais ci bind bi ahfasu duruus yi damay mokkal samay bind wa aktubu wadaifi damay bind samay wartéef samay devoir wala uwassixu kutubi bii duma taqal duma ma tilimal samay téere wa dafaatir yi ak saay ak saay kaye kon ngir xam ba xam ndax leson bii bind bii xam nga ko dañ laa war a laaj ne la lan moo tax ngay bëgg sa daara ji wala sa école bi waa sa sa tont mooy li mu la waxoon ndax kat moo may jàngal di ma yar war laa laaj kañ ngay dem ca école ba wala ca daara ja nga ne man kat damay teel a dem ca daara ja duma ma tardé ci heure jàng waran laa laajit boo gisee sa mbokki donk yi nooy def nga ne su ma leen gisee dama leen nuyu ne leen asalaamualeykum war na laa laajit euh, nooy def boo duggee ci barabu jànkaay bi su ko defee nga daa tontu ne damay noppi duma wax te damay déglu déglu xel ki may ki may jàngal di bind samay leçon may bind yi di ko mokkal di sàmm samay téere du tilim du taq loolu boo ko tontoo dana wane ne euh, dégg nga dégg nga bind bi boo ko tontuwul nag day wane ne kon déggoo ko waaw alam